いいですよ écoute, écoute, écoute, jërëjëf euh, jaajëf Abdoulaye Diop euh, jërë ngeen jëf euh, ami internaute ak auditeurs yi nga xam ni ñoo ngi bàyyi xel li nga xam ni moom mooy seen journal des faits divers xalaas ci rajo RFM 94 point 0 boo seetee li ngay seet ba pare puy njéeme sama xarit bi hmm, nga jox ma sama kaasu fone te nga génn ci biti hmm, yàlla sa jàmm yàgg. Fama kay kay excel waaw kay excel waaw kay tey Fama la ñu adopté. tey Fama mooy sunu enfant adopté bi nga xam moom la ñu adopté ci kër gi paas maa ngi sama waa ji ngi lay nuyu. maa ngi lay ziar bu baax a baax di nuyu soxna Fama di nuyu auditeurs yeeg internet yëpp di leen ziar. waaw lépp a ngi dox. ñu ngi sant bu baax noo yeewoo tey. sedd waaw mu ngi mu ngi mu ngi sedd nag. mu ngi sedd man dama yaakaar da ngay teg sa ndox mu tàng sax di ko sedd di ko sangoo muy sedd ma foog ne affaire ci euh, fii ci xel mi la Fama noo def yéen jigéen ñi moom farataalu leen sangu moom. <laughs> bu seddee. abaa noo def. ñett jàngu rek ngeen ñetti kii yi ngeen def. pare sol suñu mbubb dem. wallaahi <laughs> comme yow da am ay joueur réserve réaction bi. des fois nga xëcc kenn. damay jël kenn rek mu ñëw toog yow la ñu indi tey <laughs> maa ngi lay ziar. ne la ziar bu baax di paas a ngi am jàmm. ñu ngi sant ah, di paas nag ziar euh, suñu mbokk chrétien yi. Mhm. nga xam ni man am naa ci ay yaay ak ay nijaay euh, sama famille wax wax naa ne ñaari pàcc la. Mhm. pàcc bii ay jullit pàcc ba nekk ay chrétien donc donc maa ngi leen di ziar di leen ñaanal yàlla weeru koor jàmm. Hmm. et puis yàlla na ay xéwal yu bare bare bari wàcc ji ak Astou Kanana yéen tamit seen famille. ñaari pàcc lañ pàcc bi jullit pàcc ba la chrétien yéen tamit maa ngi leen di souhaiter euh, waaw waa kay un bon carême. Hmm. Hmm. ay ci pass euh, lan xalaas bu njëkk wax ginnaaw bu ñu sante partenaires yi gërëm leen bu baax a baax a baax. Euh, Aba. suñu kiiwu démb bi. ngam bi. mbirum terrain ya ca. Sale ak Malekounda. yi indi woon problème yi. waaw ak homme de fu ñu toll. Euh, démb. indiwaata ndax mu nekk ci benn bi. Mm, update ma. fa Fama. Fama mi ngi ci Fama mi ngi ci dafa am dafa am benn benn benn famille héritier. Mhm. boo xam seen papa dafa ñëwoon benn terrain. bi mu ko jëndee quelques mois après mu décédé. Mhm. mais bi mu koy jënd da koo jënd ci jënd bu légal këyit yu leer comprendre nga seen doom yi am nañu euh, seen certificat d'identité am nañu. ñu koy waxatee xaw ma non appel non opposition. am nañ lépp léegi ñu jaay ko benn waay. bi ko jaayee waa ji ak ay kayit yu leer aussi waa ji jël ko jaay ko benn femme comprendre nga léegi ci diggante bi bi nga xam ne femme bi war na dem miite ji terrain am. bi mu am am ko jën dem na euh, mairie Saly service domanial ba. laajte ñu ne ko terrain amul benn problème baax na mi ngi nekk ci turu ku ñu wax euh, Kefoken Bodian. Hmm. effectivement mooy paa bi. femme bi dem fay xaalisam ba desul lu muté mu ñëwaat ci même service bi mu demoon ñun ko baax na ñooñu ñu ko terrain bi dafa am problème parce que moomu leen ko. fa la yemoon. waaw ah, benn général moo ko moom faama mhm. mhm. euh, am na si koo xamante ni. ay problème mu rab la ay problème mu jinne wala dafa am ñeneen ñun ko jaayaat. daf ci am koo xamante ni. Mhm. tëj nañ ko ci kaso mu tëdd ci ba génn ñu ngi war a demaat procès le ci même terrain bi même terrain bi xam nga démb maa ngi naan la damay dem Saly mais munoo dem te wootewuloo mm-hmm. woo naa monsieur le maire de Saly Ousmane Gueye mm-hmm. bi ma ko woowee démb 17 heures laa ko woo expliqué ko les faits parce que moom yëgoon na ko ndax wax nañ ko ko ba demoon na tribunal ma expliqué ko par mënu ma je rappelle dans cinq minutes moom monsieur le maire waaw ci laa ko gëj a dégg ba fii waatagu la waaw à 17 heures nga woo monsieur le maire mu ne fii ak cinq minutes ma woo la mënu ma je te rappelle dans cinq minutes waatagu ci laa ko dégg. monsieur bu déggee li dina la woo ba pare. léegi nag affaire yi dafa am ay affaire yu sew yu nekk ci biir Aba parce que terrain boobu li tax ñu ñu koy leeral mooy premier attributaire bi mi ngi tudd Yacine Sow Yacine Sow ci moom la jóge dem ci ki ñu wax. ki ku njëkk moom waaw. ci Yacine Sow la jógee ku ñuy wax Keefuken Bodian mooy paa bi. Mhm. jóge ci Keefuken Bodian dem ci Serigne jóob sëriñ Diop mooy gendarme bi. moo yor troisième mai bi. troisième mai bi bu teeree jóge ci Serigne Diop nag dem ci Talla Thiam. Ah, am na quatrième mai. waa léegi dafa jóge ci Kefoken Badiane dem ci Serigne Diop Serigne Diop nee na ku ñu wax Kefoken Baajo moo ko ko jaay. Baajo bi mooy problème bi. ak Badiane Baajo Baajo. Baajo te Kefoken Baajo existé wul. existé wul kooku la ñëwul. carte boobu noonu def nañ def nañ daaf vérifier ko carte bi existé kon comprendre nga. Mhm. léegi nag démb nag am na ku ñu woo. mun ne ñu nañ ko may. moom mu dem jéem a waxtaan ñu jéem a trouver solution. am na ku ñu woo moom fi ñu toll nii romb nañ ko. waaw waaw xam nga woo nañ alkaati bi xam nga tax woo nañ monsieur le maire keneen ki ñu woo. kan xaar ma ñëw xam nga tax loolu. Mhm. dafa am ku ñu woowee bitim réew. Mm. am les mêmes problème am ku ñu woowee Malikounda am les mêmes problème ci terrain bi ci terrain bi ci même terrain te ñoom ñëpp kenn la ñu ciblé mooy ku ñu wax xayaa. mooy kan moo nekk service domanial maire bu Saly. Mm. kii defar kayit yi waaw. te dem nee kooku boo ñëwee par exemple bu ñu nee la terrain bi dafa am problème digganteem ak Serigne Diop daan leen bàyyi leen ma woo ko bu nangoo ma jox leen numéro. moom ko nekk ci mairie ba waaw. léegi nag nga des à l'écoute parce que am na yeneen yu nekk ci biir yoo xamante ne ba léegi waxaguñ ko ndax ki ma woo am na lu mu ciy bañ buñ ci jëmee nag moom coow dina jëf fuñ ko. foofu fa yeggee waaw. xam fu ñu jëm. da koy école nii après ñu dem ci leneen. dama koy bës. <laughs> Fass daal mi ngi enquête. mais mais de ku yor mais de ku yor Marlboro Light yow. <laughs> Fass day taal tux boo xooloon sedd mu écho. añ wala naan café yegg na waay waay waay ki kii yàlla jàmmam yàgg waay. Eh, mais xoolal di ñu manipuler nii teg yëfam waxtaan bi ba dugal ñu ci bee bi daal ñu ci génne. Eh, dégg nañu aywa am na sa jàmm yàgg. ci maîtrise li nga xam moom ngay def macha allah. wuy ma. Mm-hmm. yéen ñeer oto. Mm-hmm. déglu li lu xew. dama gis ay gars yu yor ay commande universelle te loolu dan ma ko daan nettali mais mosuma ko gëm mais dama si teg sama bët benn gaayaan bu ñëw gaare otoom si miir université bi simeeku sol blouson takk ay traînée man maa gaare si ginnaawam nii jàkkaarloog moom bon am na benn gaayam bu soloon t bu weex mais dafa wàcc jaar ne le waa ji tëj otoom ba kat kii yëpp si ñaal yi ba mu tàkkee waa ji dem yoonam man tamit ma am fu ma dem ñëwaat gaarewaat la même chose ma gis borom moto bële di dem ngay gis mu tijji oto bi jël ñaari saak ak benn kii te xaalis bu bari dégg naa moo si ne man xaw ma lan moo ma ni fotool waa ji ba ba ma koy foto ba may am réflexe pour foto ko dafa jaakaarloo woon ak moom ba may am réflexe pour foto ko fekk dem na parce que dama ni kii action bu gaaw bi muy def moomul oto bi le temps may wàcc yuuxu ko rek waa ji daw mooy dem na bon moo bëggoon nga wax gars yi pour ñu prudent am na ay commandes yu bees yu génn universel yuy tijji oto yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp gars yi Euh, arrêté def ay bagages ak ay xaalis yi somme yu bari yooyu si seen oto yi quoi franchement parce que dëkk bi doy na waar léegi trop trop trop grand trop trop man maa toog foo xaar borom oto ba mu ñëw moom mu bës commande am oto bi tijjee ma woo ko grand grand grand ba mu ne ma ah, ma ne ko ça va mu ne ma ça va mu ngi ma doon ñàkk kersa tax naan ma lan la ma ne ko non dama lay laaj dagam sa oto da si bàyyi woon ay nit wala da nga ko tëjoon wala quelque chose comme ça mu ne lan la man ko non dafa am ay gars yu tijji oto bi ak commande am ay ñaari saag yu ñu fi jël ak kii munu rek waa yuuxu wuy sama nday yàqu naa ma ne lan la munuma xaalis bari moo si nekkoon ak sama ordinateur ak sama yére bu ma liggéeyee tey jesner li may liggéey sama carte gab yeeg et tout lépp a ngi si biir donc ma ne ah, gars yi de ñu ngi nee di kii photo bi laa si am munu ma lii nii moom munu si dara parce que yi boo ko amee tamit mooy loolu quoi ma ne ko ah gars de commande la ñu yor moom commande pour man sax yéen a ànd quoi te oto bi venant la est ce ko jëndee amul deuxième clé mu ne mën a Canada la ko jëndee quoi yooyu yëpp xalaatoon naa ko nag kenn la mais am na ku mu àndal kooku dafa wàcc moto bi topp si ginnaaw gaayen bi ba gaayen bi dem corniche ba dem entraînement après moom mu romb pour man nag ñoom ñoo ànd ko tijji oto moo jël saag yi moo taal moto moo dem xam naa borom t-shirt weex da koy jël si kanam sûrement noonu lay demee ko yóbbu na àddunaay waaj de. yóbbu na àddunaam waaye yow tamit àddunaa ngi wax ci sa pertinence euh, vraiment Passepartout xale yi ci Facebook bi yëpp ñu ngi naan Passepartout tu es formidable Passepartout da nga extraordinaire li nga def dafa wóor. léegi nag kii. moom hmm. amul image wala amul dara loo xam ni mën naa tax ñu indiwaat. am naa ci photo mais photo bu mënul jëriñ ndax. bi mu bi mu jëlee bay wane ginnaaw ci laa am réflexe photo waa ji. Mm-hmm. kon ñun nga gaare sa oto yor sa caabi oto dem doxi say soxla sa oto nekkatul ci sécurité kon. daa am ay clé ak yoo xam dañuy brouiller signal yi. mais parce que gars yi dañuy sax euh, di euh, nu ñu tuddati pirater distributeur automatique yi. kab mm-hmm. yi gars yi mën nañ lépp léegi. ah oto boo fay gaaree ko fay dem sa yoon mën nañ ko mën nañ ko jël. ubbi à ton insu moo tax tamit yenn somme yi tamit jarta bu ñu waxante dëgg mm. yenn somme xaalis yi da ko bàyyi ci oto tamit xëy na transition mën nga ko war a yóbbu fenn gaare ba ko fa mais boo bàyyee xaalis ci oh. oto sax dina tax ba nit ki romb mm. xelam dina nekk ci jël ci biir oto bi parce que gis na ci sac dëgg la même ci mm. oto bi gaare attention ay ordinateur xaalis ci oto day attirer attention nga def ko ci suufu siège passager bi mm-hmm. loolu tam ceewaaru kaaraange ga te waa ji li mu def nii c'est un acte citoyen mais tam jël na risque mhm. parce que waa ji mënoon na ko ni convoqué ko wala ñu porté man loolu laa njëkk xalaat bi mu ko waxee mais man xalaat loolu na ma mais comme ci otoom la toog mhm. di photo di filmer daa baax rek daa baax rek mhm. daa baax rek oto te bi waa ji wàcc moom mi ngi koy gis eh, ñii sàcc yi bi ñuy roodee di topp ci ginnaaw waaj yi di xool ban ban direction la jëm. Mm-hmm. mu ngi leen di gis donc pour moom ñoo ànd. Mm-hmm. c'est que seetaan benn vidéo bu mel ni man yi tax euh, peut-être nit ñi di bàyyi ay kalaame ak yooyu. Mm-hmm. xam na ndax yéen ñëpp seetaan ngeen ko wala waa ji dafa fekk benn xeex. kenn ki dañ ko suuj paaka. ba deret bi di sotti mais bi police ñëwee waa ji doon expliqué. tout à fait gendarme la woon sa benn naan ñoom ñaar dañoo songoo après waa ji jam ko après kii expliqué lépp. waa ji ne ko dem zar mu ne dem. donc waaye mu ne ah kon dinaa dem sànni mbir nii rek. parce ah, <laughs> ah, dem nii rek mais waa ji insisté na fukki yoon nag ah kon dinaa dem nii ah, waaw parce que yaa fekke donc soo ragal genre problème yu mel ni bu amee ñëwee la yow kaay dem nga wuy. jéggi am naa am naa sama benn yaay da boo xam point heure gii mhm. ma keroog fi mu gaaree otoom gardien yi toog ni ci portière u chauffeur bi di ataaye benn waaye jaar na ci ginnaaw ci beneen portière bi tijji oto bi ak commandam sàcc ay bagages am dem. ana gardien ñu ngi toog ci portière u chauffeur bi di ataaya. wax ma. c'est compliqué de bii nee nga fi am na koo xam ni dafay waaj tuxu këram di defaraat kër gi ñu ñëw jël kër gi la ca nekk yëpp yóbbu. loolu de li ma ci am abaa vendredi laa ko yóbbu. démb rek jëlaat naa ci yeneen ñaar yóbbu. waaw boobu maa ngi doon dégg. buntu këru mbër ñëw rek buntu këru mbër gi la. ma ko bëgg nga maa indi yaa ngi dégg yi Yacine ko ci kanamu abaa fekk abaa fekke ko. buntu këru mbër bi lañ yóbbu États-Unis tamit am na koo xam te ne dañoo demoon ay buntam ay millions jaxaay bëccëg ndar kam ku nekk États-Unis dama koy dama koy kii. da koy boole yëpp ba vendredi. waaw waaw après audio ma ko rek. incha allah vendredi moom boo ma nammee gis fii moom wooyee neex nga ni kii nu mu def nga ni. yéen jigéen ñi. Mm-hmm. bàyyi leen seen xel seen bopp. si bu baax vigilance. ñuy dugg seen kër naa leen seen seen jëkkër ma yónni. Mm-hmm. déglu leen man dama tëdd sama néeg dañ ma fekk kër gi may sëy dimanche bi passé nii ma tëdd bëccëg bi mais nelawuma maa sama doom bu am ñaari at xale baa ngi tëdd mais ni ma ko muree ku dugg ci néeg bi ko gis jékki saay am ku ñëw taxaw si perron bi ne salaamaaleykum fekk sama belle-sœur yi ñoom ñi ngi nelaw xale góor yi kenn nekku fi sama goro góor moo fi nekk te mag la salaamaaleykum salaamaaleykum paa bi ubbi bunt bi demaat dugg néegam ma génn taxaw ne maaleykum salaam moo ne na sa jëkkër moom laay seet ma ne ko sama jëkkër kan la si jëkkër yi bu mag bi bu ndaw bi mu ne ma borom néeg bi ma ne ko ah wax ko sama turu jëkkër ma ne ko néeg bi may borom néeg bi mu ne ma noonu sa jëkkër te mu njool nii xaw a ceene affaire yooyu ma ne ko ah ma wax ko sama turu jëkkër diw mu ne ma waaw ma ne ko noonu dellu na Dakar mu ne ma ah dafa voyagé ma ne ko waaw ñibbi na mi ngi Dakar mu ne ma ok rek waaxu jub si ma ne ma moom moo ma yónni woon pour ma ñëw indil la sa garab bi pour sa bopp bii di metti effectivement damay amee méttitum bopp mais sama jëkkër waxuma ci loolu dara waa ji daal li ma duggee rek mu ne ma abal ma bic ak gaaw dama yaakamti abal ma bic ak euh, feuille ma bindal la après man dinaa ko woo expliqué ko dama ko waxoon ne bu la wax man dama fiy ñëw ma ne ko d'accord ma dugg di jël bic ak feuille tourné gis waa ji dugg na sama biir néeg rek toog tellement dama choqué ba xaw ma lu ma ko war a wax ma jox ko bic ak feuille mu commencé bi danaan ma bopp bi day metti ñëw ba ci xaaju bopp bi ma ne ko waaw mu ne ma biir bi day metti di jàpp naq bi ma ne waaw ne patt di ko déglu mu ne ma indil kaas lépp mi ngi bind de nga def ci ndox nga ñëw ma defaral la ci sangal defaral la sa yaram ma ne ko waa baax na ma jël kaas ne xaaral damay ko waa yow diw dafa am ku fi ñëw léegi ma kan la ma ne ko benn xale bu góor bu boot ma téere pour man du ma ko nangu ndax kii xaw ma ko du ma nangu muy laal sama yaram mu ne ma ana ma man yónniwu ma ko ma jël téléphone bi ne am wuyul sama jëkkër waa nekk fa di naqal naqal naan waxtaan man la Mouhamed yaa ñëwoon ci daara ji doon si wut ay ñaan affaire yooyu sama jëkkër yuuxu ko harcelé ko menacé ko ne ko génnal saaga ko après mu xaw a jaxasoo tuuti mu ne ma soxna si am moom nee xamuma de xam naa dafa fàtte mais garaawul bàyyil ma bind ko bàyyi ko fi après man dinaa fi ñëwaat fekk sama jëkkër ko pewul sama jëkkër insisté ne ma nag kër gi na dem ma ne ko sëñ bi sama jëkkër nee na xamul la jógal nga dem ma insisté mu génn dem ba ci buntu perron bi taxaw bàyyi fi bind bi ne ma waaw léegi xaaral ma expliqué la ma ne ko noonu mu forcé ko mu génn dem ba ci ëtt ba taxawaat ne dafa lu ma expliqué ma ne ko noonoo demal waa ji génn dem ma dugg gi dugg sama biir néeg taxaw même pas cinq minutes waa ji ñëwaat di fëgg buntu kër gi dafa ñëw rek bés buntu kër gi fekk mu ma croché ko mu bés bés bés buntu bi tëju mu fëgg fëgg fëgg def na ay xanaa presque dix minutes ci buntu bi ubbiwu ma fekk kenn nekku fi jigéen ñi ñaar lañ ñu ngi nelaw paa bi mi ngi ci biir néeg bi tëdd te mag la ma mujjee ragal boo sama rakku jëkkër mu ne ma tëjul sa biir néeg maa ngi ñëw noonu après ma am ku ma woo ko ku ñëw xoolal ma ne ma kenn nekk fi mu dem le soir ay 18 heures waa ji dellu siwaat ma dékk muy wax sama belle-sœur naan nga euh, borom néeg bi laay laajte dafa am lu ma ko doon wax fekk heureusement kooku déggoon nañu kooku yuuxu ko ne ko kenn nekku fi affaire yooyu mu dem te waa ji li ma gën a bàyyiloo xel bi mu ñëwee ba toog dafa ñëw nuyoo ba pare ne ma goro bi ma ko sama goro moo la ubbil bunt bi mu ne ma ah wax nga dëgg paa bi wax nga dëgg nuyante ma xale yi ma ne ko xale yi dañuy nelaw mu ne ah waa na noonu la loolu nag moo gën a attiré sama attention pour nit ñi si bàyyi xel di si bàyyi xel daal parce que àdduna bi léegi wóoratul dañ lay fekk sa kër fekk sa néeg xamoo nuñ lay jikkee gis nga kii ñëw na ne sama jëkkër moo ko yónni te comme dafa tombé woon ak man ma am métti bopp su ma nooyoon ko tuuti dama koy gëm bi mu demee nekk nii mais sama jëkkër bi mu demee am benn uh, borom daara bu mu ko wan fi mu nekk nee na ko lii bindu bi def ko abrégé bindul normal mais lii du affaire mbob yu métteeg yooyu lii pour lu bon la mooy ñii di wër di gën a maate soit dañuy yóbbu sa doom wala ñu roñ la wala yow luñ la wax nga def ko soit nga topp ma nga man de daa am laaj moo naroon a laaj. Hmm. heureusement tontu na ko ci dernière seconde yi. Hmm. dama la naroon a wax kii sàcc la. wala dafa ñëw am faiblesse su ndaw si wala nu mu demee. heureusement ils ont compris que ni def kotu ñaawteef la. Hmm. mooy ñi nga xam dañu ñëw lëndëmal la. ba sa xel lëndëm ñu dem heureusement. ak lu ci mënti xew. Euh, femme bi elle a très bien fait. parce que ku ci nekk ñun danga bëgg wér. te liy metti ci yow boo gisee ku ni maa ngi ñëw toog pour faj ko. doo gaaw xalaat naan xaaral moo woo di wala da ngay bëgg mu faj la ba pare. mais femme bi xalaat na xalaat ne lii lu ñaaw mën na cee ñëw ba mu woo boroom këram ba borom këram aviser ko ba leeralal ko. mais lii c'est extraordinairement dangereux. extrêmement grave. xanaa xamoo fi benn affaire fii côté côté côté côté yéen yéen yi. Mm-hmm. daaw benn femme daloon na waa ji génn ci kër gi ànd ak moom waa ko fekk comme ni mu fekkee kii nii wax ko bindal ko jox ko mu sangu ñu ànd ñoom ñaar fan bi dem duggi marché ànd ñibbisi ci kër gi dugg ci néeg ba waa ji def ko lu mu koy def génn dem yoonam. ray ko. ray fan. sant yàlla. te da koo da koo teq. tequm biir ah da koo teq tequm biir sant yàlla la ndax gars yi teq nañ leen biir bu pare faat leen dem seen yoon. gis nañ ko fi temps ñaari soxna yoo xamante ni ñu yaakaaroon ci ñoom faju mhm. ñoo leen faat. léegi nag ñaaray am. soit dañ lay utiliser pour pour tëdd ak yow wala soit ñu sàcc sa doom wala ñu sàcc sa bagage dem ak moom mbirum sàccum xale yi léegi lu existe la Sénégal dañoo wax naan ay jamono noona mais léegi lu existe lu réel la mais parce am na la war a update de bu ñu génnul Gàmbi tuuti mooy gone ga ñu yóbboon koo xarfal te mujj kii ko daa mel ni jàpp nañu fa waa ji yóbbu ko gendarmerie soxna si mhm. xale bi ñu xeesaloon voilà tamit évolué na jàpp nañ ko mi ngi ci yoon waaw na évolué jàpp nañ ko instant Euh, kii mi ngi mi ngi suivre euh, procédure mi ngi mi ngi suivre fële ca justice. donc euh, dañuy bàyyi ba gars yi. daanaka ah, am na fu ma ko ñu am na fu ma ko liir ñu ne femme bi dafa dem sax ba avoué. l'observateur waaw waaw l'observateur moo gën dem waaw. l'observateur na mm-hmm. femme bi dafa dem ba avoué ni kii du doomam ak yooyu yëpp nangu na ko. même mu ci yoon tee mm-hmm. ah baax na baax na donc lii la yaakaar naa ni li ñu amoon ci temps dafa jeex. Mm-hmm. balaa ñuy tëj émission bi ah. nuyul ma sama waa ji. kat si man sama loxo cuuraay kese lay xeeñ. kan la. am di am di cuuraay am ngi koy kontaanee borom parfum yu neex yi borom cuuraay yi ku baax la <laughs> ah di nuyu suñu partenaires yi nga xam ne ñooñu gunge ci xalaas bi waaye di nuyu xam naa di nga ko war a namm comme ñun dañ koo namm lool euh, Maître El Hadji Diouf yaakaar naa ne xale yaa ngi naan nuyu ñu Fama <laughs> euh, mu nuyu ñu Maître El Hadji <laughs> président